salaamaaleykum salaamaaleykum everybody ex to mine la aka Larry Jolof te maa ngi fii Thiès biir xat xol record with my man Keze Mr Karbala in the building. yeah what's popping grand yaa naa la. yeah la pay bro fi la pay. yaa cool maa lay siyaar bu dal jàmm quoi. alhamdulilah kontaan nañ ci accueil bi. yeah man maa gën a bég bon voilà welcome in xat xol. xat xol donc d' abord di leen nuyu di nuyu équipe bi nga àndal yëpp. di nuyu tamit xam nga euh, ñëpp ñi nga xamante ne bi nii ñu ngi seetaan émission bi. Hmm. di di di di siar ñëpp di len wax na leen tey voilà ça fait c'est un plaisir ma ñëw fii ñu dalal ma gars yi ma dalal len sama studio yeah. voilà ñu dara waxtaan si album bi insha allah di bëggee ñëpp quoi am solo am na solo bat fi may njëkkee ma first question fi muy da mooy dafa mel ni mënul woon ñàkk nga nek alone ana ñi nga àndaloon yeah donc question boobu noonu pour répondre ko euh, da nga koy dañ koy delloowaat si si fu gën a sori quoi hmm. mooy ba ngay judd àndoo hmm. ak kenn quoi pour man ba ngay nekk sa biiru yaay sax yow ya kese yaa fa nekkoon donc l'homme naît seul et meurt seul donc live e, e, bi yëpp da ngay dajeeg nag ay nit ay connaissance parce que teñ naan benn loxo rek du tàccu à chaque fois di nga am nit yoo xamante bi ngay muy say copain d'enfance muy bi peut-être ay fréquentation wala yéen a ay affaires yoo xamante ne bi nii yéen ko en commun donc ñooñ noonu ñëpp tey doon ay nit yoo xamante ne bi nii euh, dañuy créer benn monde autour de toi quoi. mais monde boobu noonu nag li muy li muy li muy rëy rëy rëy yëpp connaissance yi li muy bëri bëri bëri bëri yëpp yow da ngay toujours da ngay nekk nit koo xamante ne bi nii yow kese la maanaam doomu aadama mënoo basé wu keneen feneen furul si sa bopp wéeru si sa bopp wéeru si say capacité ak li nga mën quoi donc boo gisee ma ne amul loon maanaam mënul ñàkk ma nekk loon. moom mooy dama dellusiwaat si loon boobu noonu dellu dellusiwaat si samay capacité bopp dellusiwaat si sama bopp defaat rétrospective si sama bopp parce que comme ni ñu koy waxee rek life dafa des fois nga nga nga nga dund ay affaires yoo xamante ne nii ça te permet d'arrêter de de nga jàngat balaa ngay tegaat xolaat fan ngay teg sa tànk xam yan nit ngay àndal parce que des fois dañ naan fi léegi dundoo ay coono wala ay gàllankoor munoo xàmmee say nit. donc noonu ci biir coono gàllankoor yooyu noonu ci ngay joog a ràññee ne yow ndekete yow kese la quoi donc yow yaa si mën a génnee sa bopp kenn du ñëw di la tàllal loxo peut-être nit yi mun nañ ñëw di la conseiller wala dara wala ni mais jàppal ne pour nga génne si sa bopp yow kese yaa si mën a génnee sa bopp donc kenn du la si génnee looloo tax ma ne munul woon ñàkk ma nekk loon quoi. yeah for ba léegi si coono ak jafe-jafe yi ngay dund mm. tartaru life bi ma jàpp ci benn xam naa ni ma te maa ngi ko jàngee biir jail. yeah what you da nga mës a def jail wala. yeah comme hmm, voilà ñi nga xamante ne bi yàgg nañ ma suivre yëpp donc pour man xam nañ loolu noonu sama histoire boobu noonu si man donc mus naa def jail c'est-à-dire que ne si loolu noonu si biir jail boobu noonu ma def mooy dañuy dellu si waat si question bu njëkk bi mooy loon boobu noonu wéet boobu noonu. Mm-hmm. parce que si biir question si biir jail boobu noonu ngay xamee yow yaay kan en fait. parce que da nga dem ci benn condition ak benn atmosphère benn environnement boo xam ne dafa métti da nga dem foo xamante bi nii voilà foofu mun naa ne amul benn endroit bu ko gën a métti sur terre bu la fa yàlla dugalee ça veut dire que ne ñaar dafa am soit daf lay nattu pour nga jàng tijji say bët xool soit nag mu nekk loo bi nii jaar-jaar la comme tey ni si Serigne Touba jaaree comme tey ni si yonent yàlla Yusufa jaaree wala mu nekk beneen personnage bu si jaar parce que kaso tamit dafa nekk benn affaire boo xamante ne bi ñaari sens la quoi donc ñaari sens yëpp dafay andiwaat loon boobu noonu dellu siwaat si yow boobu noonu donc jeel boobu noonu pour man benn jaar-jaar la woon ak benn étape la woon mais man si biir euh, jeel boobu noonu ma duggoon si biir loolu noonu si laa xàmmee man maay kan quoi si laa réfléchiraat si sama bopp si laa xamee ne nekkate man dam aussi je suis plus fort que que man sax li ma foogoon quoi parce que dang des fois mun nga ko imaginé nga ne non fii su ma fi demee du ma du ma du te man boo xoolee bi may def Thiel dugg si chambre bi gën a métti si chambre yi muy chambre neuf. Eh, dégg naa loolu waaye chambre neuf laa dugg te chambre boo xam ne tey mun naa ne chambre bi jël bi chambre boobu moo ci gën a métti neuf dix ñooy chambre yi nga xam ne ñoo fa gën a tàng d'ailleurs ñoo bokk couloir xam lu ma lay wax mais man bi ma duggee foofu noonu ak li muy tàng ak li muy métti métti métti métti yëpp borom bi préserver na ma préserver boo xamante ne bi nii moo tax ma ne la. Euh, li si nekk yëpp sax euh, bugguma ko bugguma ko bugguma ko faram-fàccee parce que su ma ko faram-fàccee après dafay dafay yéeme quoi mais dara li li li am jàngat si biir jàngat boobu noonu si li ma jot a jàngat si biir jaar-jaar boobu noonu moom mooy si biir loolu noonu si laa xamee man exactement man maay kan. loolu am na solo. am na solo ba dafa am loo xamante ni tey euh, dafa attire sama attention. Hmm. muy dox si leer. Hmm. ci turu album bi. en même temps aussi ci contenu bi tey su ma ne mahamala, woon lan mooy dox ci leer maxaama la wala xaal la mhm. waaw dox ci leer euh, pour man maxaama la pour man maxaama la parce que dox ci leer état d'esprit la mhm. mooy li ma lay wax rek nit des fois euh, nga am parcours boo xamante da ngay jaar ci ay moment yu di nga nga ci ci nga ci bi ci bi man pour man yàlla may na ma loolu noonu quoi parce que c'est pas donné à tout le monde ñi nga xam ñaari facette life yëpp. ba pare ba pare nga remonte nga nga relevé wu yombul quoi am na ñoo xamante ne bi nii si biir ña mun nañ am am am am xëy ñàkk après break daanu bàyyi dootuñu dootuñu réagir hmm. mais am na ñoo xamante ne bi nii borom bi mun na leen may ñu xëy ñàkk loolu noonu borom bi si biir ñàkk boobu noonu mu jàngal leen loo xamante ne bi nii daf leen di mayaat doole ba ñu nekkaat si kaw ba ñu dellusiwaat si lumière bi. bañ dellu siwaat ci am bi état d'esprit wu dox si leer moom mooy loolu noonu moo si nekk mooy boo xoolee son yi son thème par thème son par son mhm. si logique boobu noonu la dem mooy nit koo xamante dafa war a rebondir nit koo xam ne dafa war a relever wu dëgg la ay échec si life bi ñëpp koy dund mhm. amul kenn koo xamante ne bi nii dund nga sa life commencement ba fin te dundoo ay échec mhm. pour man sax échec moom moo lay forger échec moom mooy tax ngay ngay surpassé wu di def ay affaires yoo xamante ne nii c'est extraordinaire parce que nit ku nekk rek li ngay doon suba nii tey nga koy jaayante. donc échec yooyu noonu dafa lay permettre nga relever wu daf lay permettre nga sigi moo tax état d'esprit wu album bi yëpp si logique boobu noonu la dem boo xoolee ay son yu mel ni ay ubbeeku ay leçons yu mel ni ay leçons de vie ay son yu mel ni ay mënul woon ñàkk yooyu yëpp dafa lay daf lay dugal si ma ay faay dafa lay delloo si si si si jaayante boobu noonu si si jógaat relever wu. fighting donc moo tax ma ne la du xaal parce que xaal mooy loo xamante ne c'est passager mais lii may def nii dox si dama ko def mu nekk benn état ma maxaama la. maanaam tolluwaay la mindset la quoi comme ni comme ni bi tudd. am ak équipe bi nu mu tudd. Mm. loolu noonu laa bëggoon laa bëggoon laa bëggoon traduire si biir album bi nii quoi donc moo tax ma ne la dox si leer maxaama la quoi tolluwaay la. et c'est bien réussi macha allah yal na yàlla xeeb dool yi. tey nga def collaboration ak Boss Beat. Mm. musicalement. perfect man loolu man album bi je m'attendais pas à un Karbala rap quoi parce que du moment man xam un boss goût musical mm, donc je m'attendais à des surprises mu sérieusement je suis satisfait collaboration bi naka la demain. collaboration ça s'est fait naturellement pour man 2017 lañ commence commencé faire du job man Boss beat, c'est sama mixeur peut-être Tank. donc depuis que je suis ba léegi ñëpp dañ ma doon wax naa continuer di job ak quoi continuer di jooba kii moo tax euh, par la suite man bi ma demee bay def album sama xel demul si keneen ku dul ñëwaat si boos pour ñu joob dara mais nag euh, dafa am loo xamante ne nii daf ñoo boole moom mooy euh, au delà de liggéey bi ñuy liggéey nii dañ dem ba maanaam créer benn famille suñu biir quoi parce que ça fait plus de trois ans mun naa ne ñooy nekkandoo di joob di ñuy joob joob nañ si joobu album bi joob nañ fi ay projet yu bari def nañ fi ay affaires yu bëri te teg nañ ay projet yoo xamante ne nii à long terme dinañ def ay affaire yu bëri ensemble quoi même boo xoolee suñu plateforme sax bu ñuy bind Karbala et Boss Pitch la ñuy bind. ça veut dire que ne man ak moom dañu commencé dañu teg benn euh, relation boo xamante ne nii c' est c' est pour la vie quoi. macha dañuy continuer di liggéey à vie Boss tamit. choisiruma ko importunément wala daf ma neex wala kanamam moo ma neex wala dara c'est parce que li muy def daf koo mën. for sure man yàgg naa joob ak ay nit jaag naa joob ak ay beatmaker. Karballah foofu do ma dag parce dafa beneen question bu ñew bo xam ne lay kii ah. té ci loolu lay rebondir té hmm. par exemple ñun Karballah biñ koy xam ay jamiru la wo ak yenen vibe. Hmm. té suñu xolé cheminement bi nga def foofu non yëpp musicalement artistiquement. Hmm. c'est quoi la différence entre boss beat parce que boss beat da ngay ciblé ben c'est un carbala posé qui a vraiment été euh, été capable de cerner ci affaire yu bari le vrai le faux ci yenn détails yu bari mu melni ko xamanteni dafa tok ci comme ni ma la ma xama bi nga tok ci chaise bi ni mm-hmm. diko def ak sañ-sañ ak maîtrise lu waral lool noonu wa loolu moy njëriñu njëriñu njëriñu direct directeur artistique comme niñ ko mën waxe mm. amna ño ñoo bi ni peut-être mun nañ nek ces beat maker dañ lay ñew rek job ak yow jobal la sa beat nga dem sa yoon mm. mais boss mën mom au delà de loolu dafa am yu bari yo xamne mom ci musique ci boppam moo ko ci jangal mm parce que man am na affaire yu bari yoo xamante ni nii dama jàppoon ne rap da ngay ñëw kii kay def sa xam nga comme man technique comme ni ma gars yi xamee rek quoi. Mm, mm, mm. mais par la suite la découvrir que ne man je pouvais faire beaucoup de man mun naa def yeneen affaire ndekete mu ndekete man mun naa wëy ndekete man. loolu moom dama la ko nëbb loolu bi ma déggee saa yi saa di chantonné. right ma ne i boos def na exploit automatiquement c'est ce que je me suis dit. noonu la demee et pour te dire hein, sans pour sànni la ay fleurs et tout.

mun nañ gis ne peut-être mun naa def ay faute fausse note wala ma dégaamee wala ni may wéyee du baax wala dara mais maanaam day mel ni lu perfection am loom perfection quoi ñëpp ay ñëpp ay à ñëpp si d'accord quoi mu doon loo xamante ne bi nii tamit c'est grâce à Boss Beats te boobu noonu moo ko andi en même temps ñuy job tax ma ne la album dañ koo job si patience si mm-hmm. temps bu durée durée boo xamante ne bi nii man daf ma permettre ma liggéey parce que bu ñu nee liggéey des fois gars yi mun nañ ne non man album bi def naa si deux ans mais deux ans yi nan la demee yow da ngay toog rek xëy am benn sound dem enregistré ñëw toogaat amaat beneen sound enregistré bii nag demeewul noonu bii liggéey la am na ay son yoo xam ne dama ko def baaxul am na ay son yoo xam ne dama ko def mu baax te génneewu ma ko maanaam exercice la à chaque fois may enregistré di gën a sama niveau di gën a yéeg mm-hmm. à chaque fois may enregistré sama niveau di gën a yéeg te lool noonu boss moo ma xam loo loolu moom moo ma jàngal ne ma woy bi déjà nii nga koy defee voix bi ngay utiliser li ngay defee cœur lii ngay defee eh, aigu nii ngay defee lii donc loolu noonu yëpp seen un boo xam ne moo tax ma ne la bos en même temps mu nekk beatmaker dafa nekkaale directeur artistique quoi donc looloo andi euh, en tout cas en tout cas lépp lu ma mun a wax mooy gars yi képp koo xamante ni dégloogul album bi dama nga déglu ko mhm. fi may ñëwee ci sama quatrième question mooy xale bi ngay jéem a waaxu naan ko ay nañ yem ci je t'aime ak tu m'aimes yemale ko foofu noonu kese eh. tey soo doon décrire xale boobu nan la mel pour man mi nga xamante ni maa ngi koy jéem a imaginer xar Karbala ci waaw <laughs> nan lay waaw xale boobu daal bëgg naa ko gis ni ci ay waaw ci ay mots description ni waaw xale bi euh, boo xoolee saan bi mu doon maa ngi ko def ak Leuz Diwane ji mm-hmm. personnalisé je t'aime tu mooy maanaam yéen ñaar kese relation boo xamante ne bi nii amul exclusivement yéen ñaar kese la mais xale bi pour man du xale bu am bu nekk perfection comme niñ ne comme ni nga nit nit nit yi bëggee di imagine idolâtrer comme comme ñu idéaliser ne su may am jabar wala su may am gel dama war a am gel boo xam ne dafa parfait dafa rafet dafa nii jikko yi dafa baax dafa yore yor non nit ku nekk euh, tu es naturel ni nga mel noonu nga mel maam ku jigéen kooku mun na nekk nit ku jigéen koo xam ne dafa am ay défaut comme man ni ma amee ay défaut mais relation relation loolu en fait moom mooy loolooy loolooy taar bi taar bi moom mooy kenn ku si nekk ak say défaut kenn ku si nekk ak say ak say say say mat ak sa matadi loolooy créer benn charme seen diggante yeen ñaar donc xale bi may décrire si biir sound bi nekkul xale boo xamante ne bi nii dafa parfait par exemple comme ni ñu ko mën a xalaatee di wax ne non princesse la boo xamante ne bi nii elle a rafet na taaru na am na lii am na la li mais dafay nekk comme sénégalaise lambda comme xalé bu jigen bi ni toog di seetaan émission bi par exemple mhm. ak xalé bu jigen bi nek sa koñ ak xalé bu jigen bu mënti doon manam jigen uru ay ni sax lañ wax mhm. te jigen bu nek uru ay ni nga bañ nako ko ba ne elles sont toutes belles ku ci defaru rafet donc ça veut dire que ne euh, jigen ñep ñoo yem jigéen ñëpp lañ comme góor yi ni ñu nekkee ben, mais manam ku nek da ngay am ay différence ak ay lacune lool nonu la motalanté motalanté bobu nonu noonu moom andi relation bobu noonu mais jigen ñep la koy waxal óorul ay ni ñëpp la si ñëpp si mën gis seen bopp quoi. yow sa préférence bi lan la dafa ñuul wala dafa xees dafa gàtt. non nu lu la wax <laughs> comme mel baax tey euh, Thiely këpp daf lay aal ay laafam. Mhm. parce que say rêve dafa sut asamaan asamaan ñi nga xamante ni tey nañ la song bëggoon ñu la tey su ma doon laaj ñan ngay xalaat ne war nañ la mën a tëj si kaaf may tontu. waaw bon ñi nga nga dem. parce que live bi tamit comme ni ñu ko waxee ku nekk am ngay ennemi ku nekk am na nit yoo xamante ne ñu ngi bàyyi xel ci li ngay def buñ sañoon doo leen doo leen raw wala buñ sañoon tey yow doo yegg fenn loolu moom yàlla moo ñu ko mooñaalee ñaalee quoi doomu aadama si si si dem comme ni ñu ko mën waxee moom mooy indi loolu noonu mooy andi envie ngay ñee nit wala dara mm-hmm. maam loolu noonu ñoo ñu ñooñu lay jox kàddu boobu noonu mm-hmm. ñooñu lay jox parole yooyu noonu quoi pour wax leen ne leen maanaam nit ku nekk ak sa dessin. man su fekkoon ne yàlla nekkul def lu des sama dessin mu nekk ma nekk di def musique kon baay naa musique bu yàgg quoi. parce que comme li ñu koy waxee rek des fois mun nga nekk si ay difficultés yoo xamante ne nii tu te dis man lii su fekkente ne man ak man kese la nii lay demee. Mm. mais borom bi moo lay téye si yoon boobu doon mm. ça veut dire que ne kon am na loo si war a def. am na foo tàmbalee te am na foo war a dem. loolu noonu laay wax te nee nañ nag asamaan si. mooy limite bi comme li gars di wax sky is the limit mm. man la man sama gént dafa suut asamaan parce que man samay parole personnel loolu noonu tey boo dégloo dox si leer mm. en fait lu bëri loo xamante ne nii daf koy def si yow maqaama boobu noonu ñu doon wax sànq mm. moom mooy daf lay élever daf lay yéegal beneen niveau daf lay yéegal spirituellement dafay yóbbu sa sa sa sa xel si beneen dimension donc loolu jéggi na asamaan jégg na loo xamante ne nii c'est visible wala dara. man dox si leer bi sax surtout ma clip bi dama ciy gis ataraxie. parce que tout blanc bi. genre le gars il est en paix avec lui-même. il est en train de vraiment éveiller les consciences de les aider à être au plus haut niveau. au de ça quoi moo tax boo xoolee esprit wu sax album bi même cover bi. Mhm. tout en blanc là. fay génne prestige. affilée xam nga ma quoi yaa salam. quoi donc instant paix boobu noonu lañ bëggoon. Mm. retra euh, lañ bëggoon jox jaam yi quoi wan jaay que ne leen voilà quoi on a retrouvé notre paix intérieure te loolu noonu c'était dañ ko bëggoon partager ak ñëpp moo tax ñu def ko si dox si leer quoi macha allah macha allah bu ñu déggul ma baamtuwaat ko kan la ñuy jiitee di foqati respect pourquoi rage boobu noonu wala boog rage la xaw ma na laa ko ban appellation laa ko war a jox selon yow rage la haine la prise de conscience la état d'esprit la parce que dama ne temps liberté la tudd quoi te mm-hmm. liberté benn moo képp la mm-hmm. moo la quoi mm-hmm. comme ni ñu ko mënee wax ci anglais freedom ni lañ mënee wax liberté ci français walla leneen ak leneen kon moo la mais moo ak jëfin dafa wuute lu ñuy dund ñun liberté bi dañ ko war a dund moo tax ma ne kañ la ñu jiite di fokkati respect kañ la ñuy jiite bu ñu déggul ma baamtu kañ la ñuy jiite di fokkati respect bu dee Demba Dupont da ko dëkkee Dupé. parce que ba léegi nii ñun dañu nekk si jotu tubaab yi. tubaab yi bi fi mu taxawee si ñun te dañu toll si benn jamono boo xamante ne nii pour man mm-hmm. génération bii nii ñu nekk nii nii nii ñëpp conscient nañ si loolu. Mm-hmm. xaw ma nag génération bi bi bi passé de mm-hmm. mais génération bii nii nii nii nii euh, africains yëpp wala nit yu ñuul yëpp. yeewu nañ si benn affaire léegi nag lan moo des mooy peuple bi ñu yeewu te njiit yeewuñu parce que njiit yi ñooy jël décision yi donc ñun njiit yi la ñuy waxal man boo xoolee saan bi waxuma ak bi de. si njiit yi laay waxal. si parce que ñoom ñoo desee yeewu xam nga dañu naan noo Afrique seen peuple yi yeewaguñ ba léegi mais au contraire Afrique léegi seen peuple yi ñoo yeewu. la preuve gis nga ko si kan bi. bi ñu demee Égypte bii nii bu gën a ndaw. Hmm. bi ñu égyptiens yi tegeelee loolu bi ñu ñëwee dañu leen teg laser. <laughs> lu gën a wala leen ëpp leen ñu fulla hmm. tubaab yi léegi faaleetuñ leen mm-hmm. lijjantiwuñu ne maam tubaab la nii wala nele suñu génération boobu mm-hmm. ñun ñoo nekkul si ay tubaab la lii wala moom ëpp xam-xam wala ëpp ñu xam-xam ñoom ñun suñu génération bii ñu nekk quoi mm-hmm. kon donc peuple tubaab yi fa nekk yi nekk nii nii nii di dund si tubaab yi ñoom ñoom ñoom yabuñu ñu ñun kon seen dirigeants yi waruñu yab suñu ay dirigeants donc moo tax ñuy alerter suñu ay dirigeants di leen wax ne leen maanaam instant yi dafa jot africains yi jël seen dëkk yi seen destin en main di doxal seen ay dëkk niñ ko bëgg doxalé parce que loolu mënatul continuer ñuy nekk ci dëkk yo xamantene bi ni dañuy dund ci français fa bi gëna nga xamné mo gëna primaire ñu ci dund te bëgg ci développer mu nekk xaalis bo xamné ne tubaab bi moo ñu ko créer jox ñu ko ne entre yéen sama dëkk yi nga xamné ma maa leen coloniser utiliser leen monnaie bi ñun ñu ñëw suñu recherche ñun dañ ko bëgg wër ci français fa bobu nonu pour développer non mënul nekk ah, donc il faut réfléchir les choses autrement mu gëna kawé ba les sénégalais bëgg africains yi suñu leen di xaar si ñoom ñu wax la vérité de ce qui se passe tuba bi chaque jour ma wax ko wax naa ko si discours fu ne nee naa bi bu fekkente ne dafa am lu ñu leen nañ ñu wax ñaata la fay leen ko. mun ko fay. na millions de na nekk ay billiers de de milliards essentiel lañ xam leen nañ ñu wax lan lan ñu fay ko ko fay. ñun suñuy on est riche suñuy on est riche on a le soleil. mun naa ne douze mois sur douze dañuy gis naaj mun nañ créer suñuy propre économie bopp mun nañ créer suñu propre marché bopp Afrique dafa yaatu ñaata population doomu aadama ñoo fi nekk mat nañ léegi ñu mat milliards de personnes. Ah, suñ ko matul kon continent lañ boo xam ne am nañ doole. Hmm. te ñun ñooy avenir bi yeneen dëkk yi ay tremblement de terre ak ay tsunami ay yooyu moo fay am. Hmm. ñun suñuy dëkk ñun ñi suñu dëkk yi ñu nekk. Hmm. yooyu amu fi moo tax xama lan la ñuy andil comme ay na ay problème ay feebar. ay guerre ñun yooyu rek lañ ñu mën a créer mm-hmm. mais ñun dëkk dafa dal Californie bi ngay gis Hollywood bi nga xam ne mooy nekk prestige u États-Unis dañuy tremblement de terre mm-hmm. dañuy tabax seen ay kër ba mu naay sak année ñu tabaxaat ko chaque année ñu tabaxaat ko parce que condition yi ñu dëkk baaxul mm-hmm. seen àll yi day jékki-jékki tàkk parce que condition ñu dëkk baaxul mais condition ñu dëkk baaxul conquérir suñuy dëkk conquête conquérir ñu def ñu ay esclave pendant 400 ans ñu jigé ci ñu jëlaat ñu pendant plus de 100 ans di ñu defaat colonisation ñu jigé jigewaat ci colonisation ñu ñëwaat si néocolonisation kéro maa ngi déglu benn kii moom mooy manam instant yi dañu dañu dañu dañu dañu toll foo xamantene bi nii tubaab bi daf ñoo daf ñu noot daf ñu def benn complexe boo xam ne dañoo dem ba ñun dañu jàpp suñu bopp ñu ñun ay incapable lañ mënatuñu def dara c'est malheureux donc liberté loolu lay loolu lay loolu lay waaw loolu lay loolu lay waxaat quoi euh, phrase bi la manière dont tu l'as développée ça mooy li ma wax ça se sent que ni rage bobo non c'est c'est c'est en toi quoi tu as besoin que nos gouvernants comprennent carrément que ni ils doivent pas être suiveurs. effectivement te dafa bokk ci logique ku dox si leer quoi. macha allah affilié sànq dama la woon laaj benn question mais dafa mel ni tontu nga ko mooy par rapport ak direction artistique bi parce que mélange bi couleur yi titre yi tout est bien fait machallah wa wa ba na ci ba na si sax ma ma ma ma waxale waxaale ma remercier walé euh, tamit suñu benn grand. Hmm. bo xamné tamit jappalé na ci direction artistique bi muy mohamed Kara Fall quoi. ok wa momit benn musicien la. Hmm. bo xamante ni en même temps day ñëw à chaque fois di ñëwalé su ma enregistré bu ñëwé après ñom mom ak boss ñu nekk di déglu di xol ñom ñëpp dañoo japp si participer si ki ba paré amna ay instrumentiste yu bok ci album bi gaay album la boo xamante ne nii c'est riche même musicalement da ngay sentir ne am na ñu bëri ñu si apporter seen contribution. ça se sent te album la boo xam ne mun naa ne man ak waa xatxol ñëpp a ko job du man kese quoi. Mm-hmm. album la boo xam ne ku nekk def si andi xalaatam. ku ne dafa naa ma waaye lii est-ce que doo ko defee woon nii wala nii wala nii ku nekk andi na si xalaatam donc direction artistique bi ça revient à tout le monde. et tamit ki nga xam ne moom laay wax mention spéciale mooy Bi Black. mi nga xam ne mun naa ne album bi mën a moom ñoo ko commencé ndoo. muy def enregistrement yi et boo xoolee di nga ko gis si si hmm. nomi si crédité yi donc Bi Black tamit moom tamit jàpp shout out à lui quoi Bi Black big thing hmm. mais tey euh, ci loolu noonu yëpp kon album bi couleur yi musique bi production bi et soo ko doon évaluer évaluation ci bépp côté am hmm. lan nga may wax waaw d'abord côté côté satisfaction laa njëkk a waxee mooy mooy retour yi buñ koy évaluer mooy maanaam satisfaction bi ma si am surprise bu extraordinaire laa ci am parce que jàppoon naa ne première première fois la may def beneen tenter beneen expérience muy muy sound la yoo xam ne gars yi xamee wuñ ma si registre boobu donc mënoon na mun na nekk mënoon na nekk benn moment la woon boo xam ne dafa crucial woon mënoon naa def faux pas daanu mënoon naa def album boo xam ne gars yi duñ ko apprécier et tout mais macha allah à l'unanimité ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañ ma siy félicité challenge bi moom. waaw relevé nga ko noonu la demee quoi yi nice macha allah. et puis tamit def nañ innovation bu bu bu bu bees. mooy jëm jël nañ jël affaire yi jaay ko ci site internet bi. mu nekk loo xam ne au début gars yi comprendre woon mais après dafa marché de ouf. gars yi fa lañu ba nii may waxee yow. gars yi ñu ngi streamer quoi yi ñu ngi bi di jënd. streaming yeeg yëpp parce que film sax teeluñ ko fa dugal. même biñ koy bi ñuy ñëw di dugal maa ngi rappelé wu bi ñuy ñëw di dugal album bi première fois bi di ko di premier jour bi ñuy ñëkk di commencé album bi si site bi lañ ko jaay. Mm-hmm. mais gars yi bëri dañ doon naan non pourquoi ñu koy génnee site bi nañ ko dugal si streaming yi affaire yooyu noonu fekk ñu ngi leen bëggoon comprendre loo que ne streaming yi dëgg la quoi Sénégal fii nii mënuñ si gagné lu bari. Mm-hmm. te artistes lañ ñoo xamante ne bi ça fait plus de trois ans ñu nekk di dañuy jël ay briques ay millions di ko def si suñuy ay projets. Mm-hmm. duñ ko wax kenn te ñenn ñu bëri mënuñu xam travail boobu noonu yëpp si ñun wala sacrifice yooyu noonu yëpp ñuy def si ñun mais million yooyu noonu yëpp ñuy jël di ko investir si musique bi dafa war a doon loo xam ne daf ñu war a delloo si daf dañ ko war a delloo si waat te loolu noonu public bi nga xam ne moom moo ñuy suivre ak ñi nga xam ne ñoom ñooy melomaanu musique yi ñoom ñoo si mën a jàpp jël benn 3000 wala benn mille jënd benn artiste benn albumu benn artiste wàññiwu la dara en fait non te li gën a grave artiste bi da ngay déglu benn son mu jëlee la benn step. yóbbu la la step. donc culture bobu non, il faut gaay am ko. si du dara. gaay artiste, artistes yi bu ñu bëggee yi di gën a productif di leen defal ay vidéo di dem di conquérir marché international. Hmm. ñoom ñoo siy jàpp. seen 2000 yooyu seen 1000 francs yooyu noonu ñu ñuy jox. Hmm. yooyu noonu la ñuy multiplier ñun di si def ay vidéo yu extraordinaire vidéo yooyu noonu di dugg si marché international. bu ko defee après day delloo si waat si Sénégal. parce que ñun li ñuy def nii yëpp pour Sénégal la. donc loolu noonu moo taxoon ñu créer site boobu noonu def ko mu nekk tamit benn affaire boo xam ne ça réussit de ouf. innovation voilà mu nekk tamit si bokk na si évaluation yi yi nga xam ne euh, def nañ ko si si si affaire bi moom mooy il faut ñu ose oser def changement quoi oser créer andi lenen si oser tamit def lo xamante ne ça nous permet ñu gagner sur suñu musique quoi. si donc album bi ta grosso modo machallah allah retour yi satisfaction. album dox si satisfaction 100% te suñu doon xol en tant que Karbala young nega ku nek ko xamanteni ni voilà yàlla may na la benn mindset bi lepp machallah open brain bi da gis insécurité bi nek ci town bi gars pour jaxlé nañ instant bi ni lan ban message ngay lancer en tant qu'un artiste. conscient. waaye insécurité bi moom franchement ñëpp ñun ñëpp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy ñaawlu quoi xam nga euh, te man chaque fois damay gis gars yi dañuy toog naan non gars dañ leen war a wax ñu bàyyi di def lii di def lii di def lii pour man gars yi peine yi ñu leen di teg peut-être moom moo moom moo tax parce que des fois amaana yenn affaires yu yomb yi ñu leen di ni leen di jugé ni muy yombee moo tax ñu koy ñu koy defaat. je trouve que ne maanaam il faut ñu jël ay solution yu drastique si benn affaire hmm. dëgg la quoi nit mun naa rey eh, nit si erreur wala si ndogalu yàlla ya hmm. wala loo xam ne mun munul munul woon ñàkk mais hmm. loo xam ne la nit liggéey di dox yow ya nga jël al sa sa jam wala nga jaay ko doole nangu alalam waxuñ si yemuñ si loolu nga gaañ ko bu dof-dof loo nga rey ko mais loolu dafa ëpp léegi nag il faut ñu dellu siwaat si ñun lan lañ bëgg quoi exactement ci suñu société mel su fekkee dañu bëgg di tolérer ñooñu mais dañ leen continuer di tolérer su fekkante ne tam dañu bëgg benn solution bu drastique mooy nañu dellu siwaat ci base yi boo reyee nit kaay rey la non benn nit bu reyee benn nit ñu rey ñu rey ko ñaari nit rey benn beneen nit beneen nit rey beneen nit ñu rey ko non doo gis ñetteel waaw loolu lu leer la problème bi mooy bay bayal bi nii hmm. moo tax affaire yi demee noonu mais il faut ñu jël ay solution yu mu leer ñu xam ne nii la demee saay fii dëkk bi boo fi ni nit. noo dañ lay rey après boo ko defee sa main doo rey nit. waaw loolu moom loolu moom dégg naa ñu bëri di ko waxte lu am solo la tamit en tout cas kontaan nañ ci waxtaan ak yow partager ak yow suñu sañoon deux heures de temps la am. parce que on a beaucoup de choses à se dire. mais tey vu que voilà on est là à Thiès uniquement temps bi ñu accordé c'est quelque chose de vraiment magnifique tey projet yi war a ñëw suivi album bi. lépp pour ñu terminer. waaw suivi bi comme topp promo bi rek euh, déjà ñu ngi nii waajal deuxième vidéo bi génn na. Mm-hmm. muy Young and Wise. donc mu nga gars yi mun nañ ko mun nañ ko gis si plateforme YouTube. Young and Wise moom sama crush la. voilà donc Young and Wise moom I really like it. donc vidéo bee ngi si si YouTube bi. Mm-hmm. ak disponible si plateforme yëpp. donc aussi tamit ñu ngi waajal show le 18 juin. Mm-hmm. incha allah fii. Euh, promenade des Thiessois. mindset day ñëw couvrir mindset bi dafa war a ñëw couvrir sax si yoon invité naa leen live and direct. jeex na ah, donc voilà quoi. Euh, concert boobu noonu moom mooy doon show lancement album bi. donc bu ñu si jógee incha allah nag dox si leer tour fi lay tàmbalee quoi. donc vacances yeeg affaire yooyu noonu yëpp bëgg nañ dem si région yëpp ndax après Thiès bëgg nañ dugg Ziguinchor Kolda Tamba Tam euh, Richard tol xam nga dem Dagana. wàcc non bëgg nañ def tournée daal donc dox si leer bi moom dox si leer tour lañ ko bëgg a def comme li ma defa de daa deful woon si yeneen projet yi ma jotoon a génnee bi yoon bi jël bëgg nañ ci def euh, tournée Sénégal yëpp quoi en tout cas tournée Sénégal a mais man maa ngi koy ñaan mu nekk all around the world parce que artist la boo xamante ni am na talent bi am na xam-xam bi te am na vision bu leer li Jay-Z doon wax all the things is about knowing mooy foo nga xam li ngay def te loolu moom mu ngi ci yow macha allah yàlla yàlla xel dolli kontaan nañ bu baax a baax. maa leen gën a bég. Mr Keuze. maa leen gën a di leen remercier xam nga si si dalal bi ngeen ma dalal. donc di content. trop trop trop trop trop. di remercier sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp ak ñëpp képp ku nga xamante ne nii fan si Karbala nga di ma suivre un peu partout dans le monde. Malaysia lay shout out di la remercier bu wér a wér a wér di wax ne leen xam nga ça été un plaisir tey ma partage ak gars yi thank you very much one love man x to mine la aka Leru Jolof moo ngi nii mindset you know tey ak seen real OG Mr Karbala in the building dox si leer dem leen jëli ko man nigga déggee naa leen mindset ma meen Lodja Babacar ak ñëpp ñi nga xamante ñu ngi follow mindset in the building agi laare maam nigga